yal na ma si dimbali ba lépp loo xam ne bëgg na ko liggéeyal lislaam bëgg ko liggéeyal Serigne Touba loolee ñu defe ko nu ñu ko bëgg nee na nag mi ngi jiital ci nuyoo yi ak cant yi ak lépp loo xam ne kaddu la bu mu war a yëkkati jabe ko ci mbooloom nee na day mi ngi koy jiital ci Cheikh Mouhamadou Lamine mi nga xam ne moo jiite liggéey taxawaay ci pas-pasam ci yitte jum jox liggéey di ko jaarale itam ci jawriñam di bàyyi falam Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacké ibnu Serigne Mohamed Mbacké mi ngi ko jaarale ci jawriñ Baye Serigne Mbacké Guèye ak mboolem jawriñu kër Serigne Touba yi mu àndal Cheikh yi mu àndal te ñoom ñëpp bëggu Serigne bi rek li seen bëgg te si Serigne Touba defoon ci seen maam yi loole nekk ci ñoom te ñoom ñëpp ku tedd ki gën leen seen jëm yi kon sëriñ baa ngi koy nuyu moom su bàyyi Serigne te di ko ñaanal bu baax ak jawriñ yi nga xam ne ñoo séq Ahibahil Khadim yëpp Serigne baaraloo ak mboolem daayira jamaat muridina saadiqin di ñi xam ne ñoo takkoon seeni laxasaay ngir di wut ngërëmal yàlla ba saa borom jox leen ak ñanga nga fa ña nga xam ne ña fa. di wut ngërëm loole te yal na leen ko yàlla jox mi ngi koy jare ci sëñ Mbow mi nga xam ne itam moo jiite mboolem confédération Ansaru Diin mi ngi koy jaarale ci sëriñ Mudu Mbow mi nga xam ne mooy jawriñ mbooleem am ansaaru diini yépp di leen jotli ay cantam ak i ngërëmam ak i ñaanam waaye di ko jëmale itam ci soxna maam bu sa mu murit Saadiq bii nga xam ne ba mu noppee gis Serigne Mohamed ab liggéeyam bépp daa mel ni ci mu Moustapha mi la ko war a tàmbalee kon sëriñ baa ngi leen di sant bu baax di leen ci gërëm waaye nag bokk sëriñ bi wax na ne balaa ñuy dugg ci waxtaan wi mu beral cant koo xam ne. xaas lay doon ci kii di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi fi nekkal Serigne Touba di maam di léppoon jàpp ko lool sopp ko lool bi nee na mi ngi ñaan moom ci jëmm gi di sàkku ci taalibe yi kenn ku nekk nañ maas yi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha mii yal na ko suñu borom bàyyi mu yàgg fi lool te wér lool suñu borom may ko wér te sëñ Tuubaa it féetu ko fépp doon li mu doon mu saadef yal na ko suñu borom di def addaafan mudaafatun saa su ne fi kulli waxtin wa saa ci barkeb sëñ Tuubaa ba li mu bëgg a liggéey sëñ Tuubaa lépp nee na yal na ko suñu baxaa def ba mu sotti culeet àndukaak moom ci barkeb sëñ Tuubaa nee na it am di baax ci barke borom Tuubaa nee na mi ngi siyaare ak jot li nuyoo ak ñaan sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ Mbacké Madina Cheikh Mouhamadou mu xalifab Cheikh Mouhamadou Lamine muy sëriñ Cheikh lay di jëwriñu sëñ Baara te diggante bu bi daal di genn kër la moom itam mi ngi koy siyaare baax ak njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara yëpp. nee na tam noonu lañ jëmale ñaan yooyu ci mboolem këri Cheikh Moustapha yépp ak kër sëñ Baara yépp ak mboolem kër sëñ Touba yépp mboolem bokki sëriñ Touba yi ak fu ñu fi mën a ne na mi ngi ko jëmale itam ci mboolem seexi si Touba yi ak ñu mën a ne waaye nee na mi ngi ko jëmale tam ci képp ku di taalibe ak foo fi mën a ne waaye nag mi ngi ko jëmale itam ci amatul muslimina ci képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah Cheikh Moussa nee na mi ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu te di la yéene jàmm te la ko ñaanal ci dara ji guddi nee nag mi ngi ñaanal bu ginnaaw bu ñaanalee ñooñu ñëpp ba noppi mi ngi ñaan mu nangu nu liggéey bii ak yëngu bépp yëngu bu nu yëngal bu nu yëngu bu ne yàlla na ko yàlla nangul te nangu nu liggéey yëpp te defal li nga xam ne te loolee la saxaatu daara nekk ba yéene yëpp mën a at. bokk daali bii euh, sëriñ bi wax na ne na xam ne guddi gi dafa am ay jubluwaay jublu am na jubluwaay yoo xam ne loolu Cheikh Moustapha moo ko waxoon loolu it moonu dajale fii fàttalee lu jëm ci jàmm yàlla ak ñaan yàlla ak jéggulu yàlla ñaanal ñi ci kaw suuf ak ndax nee na noonu la ko Cheikh Moustapha digle woon ñu fa soo ko defee noonee mu ko santaane radiyallahu taala anhu nafaana bi barakaatihi ndax Cheikh Moustapha dafa waxoon ci discours ba mu bindoon ci bis bii ci guddi gii bokk na ca la maa ngi leen di jottali kàddu yii ma leen di jottali ci barab bu tedd bii muy Touba di barab bu barkeel bii ne Cheikh Moussa wax naa leen xamal ne jubluwuma ci dajale gi ma fi dajale lu dut sàkku jëmm yàlla ak sàkku ngërëmal yàlla loola mooy solos guddi gi mooy jubluwaayu guddi gi ci tuub tuub bu ak jublu ci yàlla ak jàng alxuraan ak tudd yàlla nan ko war a tudde ak waaru suñu borom ak jëm suñu borom Cheikh Moussa wax fa inni uwajjihu ilaykum ayyuha النازلون في هذه الحضرة في هذه البقعة المباركة التي لم يقصد بالاجتماع فيها لم يقصد بالاجتماع فيها إلا ابتغاء رب الأعلى بالتوبة النصوح والإقبال إلى الله بتلاوة كتابه العزيز والاتعاف بالموعظة الحسنة والدعاء لأحياء المسلمين وأمواتهم امتثالا لأمره تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر a سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار loolu la Cheikh Moussa waxoon te guddi googee nee na daal man maas tuubal yàlla tuub gu wér moom yàlla mi nga xam ne bu tuubali mën na nu jéggal te ab jaam amul lu gën ak njéggal bu jógee fa boroomam ba duutu ko ba duutu ko topp dara nee na loolu sos guddi waaye nag ñuy jàng ci alquran di ci jàng xasida yi di ci def ay nawaafil di ci dimbali ci lu nëbb ak ci lu feeñ loolu de nee na bu ñu ko defee rek suñu borom dana lu dimbali ndax moo wax ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma dana ni te guddi gi guddi ñaan la loolu sëñ Mudu Musaa moo ko waxoon am na feneen foo xam ne neen dafa wax dama leen a dajale fii man Mouhamadou Moustapha ngir ma fàttali leen bis bi nga xam ne amul sikk sàkk innama jamaatukum li uzakkirakum yowmal jam'i allazi laa fii fiihi dajale naa leen fii fi Tuubaa ngir fàttali leen ni nit ñaari bés a ko séq muy adduna ak àllaaxira te bis boobee di waaj ñëw dana agsi te benn sikk sàkk amul te bi amul benn sàkk amul bis boobee ca loolu la Cheikh Moussa waxe woon nag ne maa ngi digle bis bii di guddi gii di guddi ñaar fukki fan nee na nee na nay wuyu ba faw nay wuyu ba faw at mu ne nay am te nañ koy def fal yakun al ijtimaau kulla aamin wa sanatin ala haasihi al aqaaidi wal maqaasid Seydina Moussa la moom digle naa bés bii nañ ko wéyal ba faw kon sëriñ bi neen nañ toog bu baax ci jëfe ndigal yàlla yi ak wattu ko tere yi bu baax ndax Cheikh Moussa wax ci discours ba da ndax nee na ndigal yàlla yi mooy yoon yu ci àjjana nga xam ne moom lañ sopp waaye tere yàlla it moo jëm ci sabaan kon nee na nan seet yoon yi nga xam ne mu ci eh, ndigal yàlla yi mooy yoon yi nga xam ne moo jëm ci lan bëgg te mooy aljanna nee na ñu jaar ci biir yoon we waaye nag sëriñ bi ne dañu bokk mbooloo mi xam ne bis bii tey daf cee bokk ci li Cheikh Moussa santaane nga war koo bàyyi xel mooy kenn ku nekk li muy jëf na xam ne moo ko moom bu ko kenn te boo lëggee suñu borom dafa koy delloo nu war cee waaru bu baax a baax te bàyyi te bàyyi xel ëllëg ndax kat bu boobaa it kenn ku nekk ci noonu say jub daal dañ la koy war nga xam ne mi ngi nii boo ko yaa ko defoon yàlla na yàlla dogal nag kuy jëf yu rafet di jëf yu baax di jëf yàlla gërëm ndax wax na ne bokk na ci maanu yàlla suñu borom ci digganteem ak jaam yi kenn ku ci nekk dana wax na nu fii ci àdduna di ngeen si waat ci ma nekk wax leen wanaat leen li ngeen defoon te bu boobaa nag kenn ku nekk lam defoon rek da ko fay fekk yow ma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdara wa maa amilat min suuin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida kan nga gis sa jëf tey na ko tegal fi barab te danga ko fekk foofee wa wajadu ma amilu xaadira loolu lépp alquran kañ la wala yazlimu rabbuka ahada te yàlla du tooñ kenn kenn ku nekk la nga jëfoon daañu ko natt ba mu tollam tolloo ñu delloo la ko na loolu yi nga nu war a fàttaliku guddi gi bu baax a baax waaye nee nag ñu dal la suñu xel bu baax ndax jëf yooyu buñ góorgóorloo ba suñuy jëf yépp ñu jëme ko ci def lu baax mbaa la ci ëpp nee na bay boo ñu rafet ndax suñu borom ci baaxam jëf yu baax yi daf koy ful daf koy yàkkali defal na ko lu baree bari defal lu baree baree bari loolu nag kon nee nañ góorgóorlu wat kon ci def lu baax te sax na bañ koo xam ne benn boo def suñu borom ful ko lu bari man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha lu baax moom suñu borom def fukki yoon te sax wax nañ ne loolu laaj dëgg la loolu mooy li ñu mën a xam rek waaye boo defee lu dul noonu boo mën jàpp ci sëjjati dara bi sàkk daal sulaha ku def safaan ba it moom dong loolu suñu borom delloo tey da lay xaar boobu tuubee mbalam kon loolu li muy wane mooy suñu borom lu baax rek la am daa amul leneen ndax moo tax am gi mu am lu baax moo tax soo defee benn bu baax mu fukki lox soo defee benn safaan mu ne tekk boo ko jégalu mu far ko mu dem kon sëriñ bi nee na sax ci loolu yi ci lu dem ci ci di def lu baax te di ko sàkku te de su ko saxale te loolee nag bis bi muy am mooy yow bi bis bi ñuy wax yowmal jazaa muy bis boo xam bis bu fay dong lay doon adduna bi nag ku soxlaa jëm fu la soob di def nu la neex waaye bis pénc ma nag moom yowmal jazaa la tudd moo tax keroog bi sëriñ bi ñaanal ko tedd gi sa ngam ba daf ko ne an ni jazaaka rabbul hadaaka fawqa munaaka yowmal jazaa yi yow sallallahu sa wa maa ngi lay ñaanal man ahmadu xadim maa ngi ne yàlla yàlla ma la yàlla fayal yàlla mi la jubal yàlla ma la fayal fay boo xam ne dana kawe sa njort kañ la la koy jox mooy yawmal jaza kon bis boobu bis bu mat a bàyyi xel la ndax gis nga fi ko bi tudd bari na lool suñu borom dafa in tuqridu llaha yu hasana yudaa'ifu lakum fa yaghfir lakum su ngeen ma lebalee lu ngeen ma defal rek dana leen di lu baree baree baree baree baree kon sëriñ bi ne nañ góorgóorlu ci def lu baax te bàyyi xel ne nii nga xam ne ci ci cëri adduna yi lépp loo loo fi def loolee des na ko seet rawatina boo xam ne day du noonu ba di ko nattoo ak xool ay jëfum fu mu ba di ko ci fekk ay daal ak yeneen nee na loolee kat nañ xam ne ñu xam ci àllaaxira waaye suñu borom wax na wax na bu yàgg ne jëlale naa yéen doomu aadama yi nga ne ay ay mbindeef fekk ngeen ay mbindeef ngeen yoo xam ne ah, ci ñi gën a suufi ngeen bokk waaye ñoom a gën a yëkkati mbindeef bi di yonent yi sax danaa am ak ñoom bis kenn ku nekk ma laaj la laa la yónni woon ànd noo defak lu ginnaaw nag gi ak li ñuy baax baax la suñu borom ne danaa leen laaj doon leen yóbbu àjjana kon képp ñu ne ci seen xam ne seen gannaaw waroon na góorgóorlu baax fala nasalanna allazina ursila ilayhim wala nasalanna al mursalin suñu borom dana dana laaj yonent yi laaj ñi nga xam ñooñee te ñoom la yónni woon yonent yi waaye nee na ñu xam ne it am na laaj boo xam ne suñu borom dana ko laaj mooy xéew lii mënul jox bàyyi koog nun nu ci def suñu tasarrufaat nu mu neex di ko jëfandikoo nu mu soobee ah bisa nga ñëw boo xam ne kat danañ laaj ba xam xéewal yooyu noo defoon ak moom muy ndox mii nuy naan am jàpp di lool ak lekk gi nuy xéewloo ak lii nu yàlla jox ci ñu ko def suñu jiba di ñu jëfandiku ak cër yu jox muy loxo ak tànk ak nopp ak bët ak yëpp benn bu ci mu defal njaboot gi nu yàlla jox col gi nu cel wér gi yaram gi wér meññan bi nga ak nawet yi ak lépp sunu borom nee na lii ma leen di jox sax wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha su ngeen du àgg mukk waaye neen loo desalaaj xamal yi noo ci defoon waaw bi ngay naan ndox ndax buur yi gën a foor nga bokk ci àdduna si kenn gënatu laa doon ko kon loolu mooy doylu mooy féete ak yàlla mooy jàpp ci yàlla ne la sunu borom jàpp nga nga jàpp ci bu baax bokk yi sëriñ bi neen nan jaamu yàlla jaamu bu wóor te bañ koo bokkaale ak dara ci sunnas muhammadu rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam bi nga xam ne sëñ tubaa musta maslaa ci kuy wayeefal sunna si sallam nañ saxal julli juróom na ko yàlla diglee te tey laab na ko yàlla bi di weeru koor ak mboolem euh, yi suñu borom digle yépp nee nañ taxaw bu baax a baax te di ko defee ne ko suñu borom digalee bu baax sëriñ bi neen nan ma maanu ak di def lu baax tey muñ tey dimbalante te taxaw a jub tey saxal aw yiw tey wattandi tooñ tey jéggale loolu itam ni lu koy digal bu baax sëriñ bi neen bokk yi nan fexe ba kenn ku nekk ci nun nun ñëpp nan fexe ba sun kanam yi di leer naññi ci mbég mbégte ak bëgg lu baax ak ak ak ak seen dimbalante rek nee na bëgg na daal maanaam mandarga yi xéewali yàlla yi nekk ci noonu bu baax a baax yu jóge ci yàlla suñu borom ak tawféex sëriñ bi ngeen bokk tey mi ngi ñaan yàlla yàlla na nu fayal sëriñ Mudu Mustafa mu tedd ma moom mi nga xam ne moo dégle waaye nee na mi ngi ñaan yàlla nu yàlla fayal njabootam bu tedd googee nga ne gën a wax ñoo ko sama liggéey bii ba faw dale ci ku tedd ka sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mu baax ma ma nga xam ne waxoon na ne bisub tey bii day guddi tey gii mooy guddi gi gënal sëriñ Touba ci ay mbir sëriñ Cheikh waxoon na ne koo xam ne sa bëti xol muuruwut doo sikk sàkk ci ne sëñ Tuubaa guddi gi moo gënal ci guddi kon sëriñ bi ne yàlla ko yàlla fayal sëriñ Cheikh Mbacke ak rakkam yàgg bokkam yàggu tey doon bis bi gannaawam sëriñ Mbacke mu tedd ma sëriñ Mahmoudan Xarilo sëriñ xam yu Mbacke sëriñ Xaadi Mbacke ba ci kër gi di Cheikh Ahmadul Muxtaar sëriñ baa ngi ñaan mu yàgg fi lool te wér yàlla ko yàlla guddal fanam tamay ko li bëgg la ak mboolem ñu baax ñañ ko àndaloon ak mboolem turu yàlla yi salaatu ala nabi ak ak liggéey yi nga xam ne ak doolee koy def wala alal di ko def nee na yooyu yëpp taxawaay yi ñu taxaw nee na gis na ko loolee xolam sedd na ci na ko Sëriñ Tuubaa daan na ko dencal foo xam ne làq yàq eggu fa benn yoon kon nee na loolu daal mooy pas leneen la ca des mi ngi koy fàttali bu baax weex lii nuy sol nee na na ngeen xam ci liggéey bi la bokk de mbub mi ak kaala gii mu àndal sëriñ bi ne xam ne daa bokk ci liggéey bi fu fi waay mën a nekk na ko am wala mu am ci ab lim ku ko amut man ko wut nanga ko wut ku gis ko sa mbokkum taalibe mu ko amutit diggal na la boo ko mënee wutal nanga ko wutal ndax daa bokk ci liggéey bi da ca bokk ci liggéey bi mooy li yëre yu weex yi ci teg kon nee nañ ko fonkaat bu baax ndax fàggul nañ ci loo xam ne kat mëne su wax lami du ko tudd mukk ndax boo soloon mbubb mu weex bi kese génn ci biti bokkut ak ki nga xam ne da ko sol teg kaala gi ci kaw ndax yaar yooyu ñooy ànd kon nag nee nañ ko fonkaat te xam ne na nañu ci loo xam ne insha allahu taala ëllëg rek la nu koy xam waaye tawfiix ju wóor a ngi ci ndimal yàlla lu wóor a ngi ci mbir wóor a ngi ci ju wóor a ngi ci ngërëma sëñ Tuubaa lu wóor a ci ndax fii ne àgg na ko foo xam ne àgg na ci sax foo xam ne ni bëgg nan kenn ku nekk ci noonu sax jëlee la naa wut bum mi wala nga di wut wala nga di wutal kenn waaye ku ci amati gan am tudd am tudd laa wax bu ñu andee gone ko yére bi sax ñu tudd na sol moomu yàq teg kaala gi ca kaw da ngeen ko yóbbaale koy dem ku ci amati am tudd laa ne ku ci amati am tudd ñu koy andi bu ñuy taawu liir ba na som ahibaalu xadim ñu tudd ñu jox door ko jox tur wa loolu sëñ bi digale nee na mi ngi nuy ñaanal fa nu gudd mi ngi nuy ñaanal wér mi ngi ñaanal cam ak xéwlu yar dara ji sëñ Tuubaa booloo bi ma ngi ñaan nun ñëpp nañ dogu te ñaan suñu borom ci dara ji sëñ Tuubaa ak sëñ Mudu Musaa barabu sëñ Tuubaa baa ngi nii suñu diggante moom ñett ñetti téeméeri mètre sëñ Muntaxaa ngi nii di sëñ Tuubaa ànd ak nun guddi gii luñ fi ñaan dana am nan jiital suñu ñaan na wér lool na am jàmm lool na am fan nu gudd wax ne kenn mësu koo gis te dara ji sëñ Tuubaa saa borom jox ko xéewal yoo xam ne yërmaane gi am ci biir ak bëgg ki dimbi bëgg a dimbali jaami yàlla yi saa borom may ko ko mu def ko na ko bëgg ndax nun ñii kat wax naa leen fii ba tàyyi na leen sëriñ bi wax na ne weesu noonu bu yàgg waaye ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la nekk loolu yi ba na koy wax ña nga màkkatal mu karam di aj ban daj bari kaa bi ko yeggal ma ne ko mbàkke maa ngi fasal dong yi de maa ngi fasal dong yi de maa ngi fasal dong yi sëriñ bi ne ma Moustapha ma ne ko mbag mu ne ma noppi naa ci moom fii ni ci umatu Muhammadu Rasulullah nekk ci xeetu yonent bi laa nekk kon koo xam xeetu yonent bi nga nekk fa mu yem ci adduna kon ñun ñii jëruñoo waxal kon nag nan góorgóorlu waat takkuwaat lii mu wax ci mbub mu weex mi am na luñ ci yokk loola mooy képp kenn ku nekk ci ñun soo solee mbub mi te kool gi génn sa kër na ma wax ne Cheikh Moustapha Mbacke moo génn bi dox na bàyyi xel loola de ku sol mbumi yor ko gi jàpp na jëmmi Cheikh Moustapha nga loola nag lam laaj ci ay teggin na ko yor lam laaj ci positif na nga ko yor lam laaj ci ndax moom mi kat fu mu jaar ci àdduna koo gis dana xam ne suñu borom nga ne kon lool yi loolu lu jublu ci lool nañ xam ne daal ku ko yor foo mën a jaar na nga nag lokan te xam ne ku la xool da nga ne jëmu jaa nga ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu